Thank you. fin ñu koy en ce 11 juillet 2024 dañuy dem fële ca assemblée nationale ginnaw lepp lo xamanteni mo soxal mise à jour règlement intérieur bi nga xamanteni mon indi ciow ci dëkk bi ginnaw déclaration politique générale bu premier ministre bi ginnaw lolu nak li nga xamanteni moy mise à jour bobu nek fofu ci assemblée nationale jëmele ko ci règlement intérieur bi dafa melni ni di coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom dañuy jël sen temps en tout cas ñi di député yewi Askan bi ñi ngi avertir bu baaxa baax ay fan ngi gis nañu dal dafa mel ni tension bi dafa melni lo xamanteni dafa daldi di jëmele ko dal ci ñetti groupe parlementaire yi nga xamanteni ñom ñoo décidé pour mettre à jour li di règlement intérieur bu assemblée nationale ginnaaw loolu nag li di opposition majoritaire bi di waa de Bokk de dafa nuru tey dañu jël seen temps pour pousser ki nga xamante ni mooy le premier ministre à bout ginnaaw loolu daal di groupe Yewwi Mamdal daal mi ngi avertir bu baax a baax ci yéexeende yi lenteur yi nga xamante ni mooy bi nga xamante groupe parlementaire bi daal dafa mel ni dañuy jël benn hauteur daal di accepter pour pencher wu jëmale ko ci mise à jour bi nga xamante ni règlement intérieur bu assemblée nationale ginnaaw loolu daal ñenn ci ñoom ñi ngi wax depuis quelques jours ginnaaw médiation bi dox ci ay personnalité bu société civile notamment suñu sukkandikoo ci li nga xamante ne mooy parti démocratique par sénégalais par exemple ñoom dañuy décider décider soutenir li nga xamante ne mooy projet de loi bi nafisatu Diallo ak ay ñoñam daal di mettre à jour ginnaaw revanche bi nag nga xamante ne moo intégré lépp loo xamante ne dafa nekk ci timing bi bennoo dafa mel ni dafay jouer benn montre boo xamante ni dafa bëgg a pousser kii di premier ministre bi mu dugg ci benn faute wax politique générale am or fii nga xamante ni mooy assemblée nationale maanaam ginnaaw bu mu ko waxee le 15 juillet wala après comme nous ko promettroon li di assemblée bi dal ba tay ji meun nañu japp dal dañ nek ci ben dynamique bo xamanteni dañu réadapté waat ci règlement intérieur bi nga xamanteni tay lepp lo xamanteni meun nañ ko ci liggéey du doon dara lu ben régie bo xamanteni ki di premier ministre bi suñu sukkundiko amul ben ordre ni jonction bo xamanteni ni war na ko recevoir jëmele ko dal ci premier ministre bi ginnaw bu mu jàkkaarloog ben jury populaire bo xamanteni daf koy accueillir à cause de li nga xamanteni moy président ou Pastef ginnaw loolu nak ci ay droit droit la yo xamanteni yo xamanteni xamante ni ñoo gën a absolu sukkandiku ci li nga xamanteni moy proposition de loi bi nga xamanteni dafa teggu ci ay règles yo xamanteni règles de l'art la amul benn délai bo xamanteni tay tey fixé nañ ko ki di premier ministre pour mu def li nga xamanteni moy déclaration de politique générale am ci biir loolu nag ñi ngi laaj pourquoi ñu empressé wu bu dem jusqu'à vouloir imposer ki nga xamante ni mooy législateur yi benn date muy benn procédure boo xamante ni du dara lu dul benn bâcle boo xamante ni dafa bëgg a bousculer lii nga xamante ni mooy vice présidente groupe Benno Bokk Yaakaar di aji Mbergane Kanouté suñu sukkandikoo ci député Yewwi Askan Bi ñoom daal ñi ngi daal di dànkaafu bu baax a baax képp kuy élu bokk ci Pastef aussi ci coalition bi di Yewwi Askan Bi nañu des daal li nga xamante optimiste ba noppi ñu daal di prudent bi ñu leen invité ci benn émission boo xamante ne point de vue ci dimanche bii qui dit di Abbas Fall dafa daal confirmer que les luy tractation diggante lii nga xamante ni ay groupe dañ ko prévoir des ko daal ci ki nga xamante ni Abdou président groupe parlementaire Benno Bokkakar, Yaakaar ak ñi mu àndal ñu ngi joué daal benn montre boo xamante suñu ci règlement intérieur bi amul benn yoon boo xamante ni modifié nañ ko kii di premier ministre dina tenir ligne, nga xamante promesse am daal di déclaration de politique générale am fi nga xamante assemblée nationale comme nous mu ko annoncé woon foofu Grand Théâtre ginnaaw nak suñu sukkandikoo ci li nga xamanteni annoncé nañ ko ci RFM muy talaata bi ñu genn muy benn procédure d'urgence bo xamanteni dina doon benn imminente pour ñu mëna procéder jëmele ko dal ci restaurer lepp lo xamanteni ay dispositions la yu mëna permettre ki di premier ministre dal di def li di déclaration de politique générale am ci meilleur délai yi nga xamanteni manam mo soy tout ci 90 jours yi nga xamanteni tay tey mëna mën nañ jàpp ni que dépassé nañ ko muy mise à jour règlement intérieur bi nga xamanteni dal mom lañu wara def fofu ci assemblée nationale dafa melni wa waa Benno Bokk dañu bëgg retarder mbir mi pour ki nga xamanteni moy premier ministre def hors la loi guen assemblée dem defee ji fi nga xamanteni du assemblée en tant que président passé alors que député yi Askan Wi ñi ngi avertir bu baax a ñi di wa coalition Benno Bokk yakar